Bismillahirrahmanirrahim.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 kilifa ci dëkk bi yëpp ñoo am di la ko nuyu di dalal euh, di am kontaan ci seen di yaakaar yàlla na yàlla dimbali dimbali la ba nu dolli ko ci daara ji ay bind yoo xam ne dina beesaat tey ginnaaw boo xam ne nekkoon na lu war ci ñun ñu xam ko xam naa ko waxtu bi dafa gàtt te yi yi bari yàlla na yàlla defal ko jàppandal sàmm ko defal nu dégg ak topp te dimbali ko ci na mu aadoo woon di wax lu wér mu continue ci noonu ba keroog ñu dajeeg boromam te am ngërëmul borom bi. defe naa fi muy wax tey jëm dañuy bàyyi direct rek mu ci boppam ñu wàllu xaqiida nga xam ni ñun lañ ca mooy jàpp ko comme ni ko borom bi waxee. ndax pas-pas xam ngeen ni mooy loo xam ni lépp moo ko lal boo tolloo ci fas ko loo def lu dul fas la nga war a fas def nga erreur te fam lay leere yeneen ci yàlla musal kon ñaan yàlla dimbali ko moom leeral ko te yàlla dimbali nu it mu mën a bokk ci nga xam ne dañu dégg ay wax topp la nga xam ne la jub la jub nag mooy la yonente bi wax mooy la alquran wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillah இருக்குது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 ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قلنا بوكي كتبية أنت تعمل أكي إلمان أن يرحب لي ñepp ñoy ay nuwaabam mbooleem kilifa yi nekk ci dëkk bi ak mbokk yi jóge ci yeneen dëkk teew si ñëpp maa ngi leen di nuyu li nu fi dajale mooy ndigalul suñu borom jim nu ne dee leen fàttalante wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin waxam ne fa zakkir inna faati zikra kon loolu moo tax nu daje tey bunt bi ñu jëmee fàttali gi mooy al aqidatu saxiixa wa atharuha alal fardi wal mujtama pas-pas bu wér jeexit ji muy am ci nit ñi kenn ku nekk ak jeexit ji muy am ci mbooloo mi pas-pas bu wér buñ ko waxee mooy pas-pas dafa mënta ñàkk mooy li nit ki ci xolam gëm loola nga xam ne lu muy def loolaa ko koy tax a def lu muy bàyyi loolaa ko koy tax bàyyi buñ nee bu wér nag mooy bi nga xam ne moom la suñu borom tabaaraka wa taala mi bind jaam ñi pas-pas ba mu leen digal ñu am ko loolaay ba wér loolu nag mooy pas-pasu tawxiid wéetal suñu borom tabaaraka wa wéetal ko ci jaamu gi ñu koy jaamu te loolu mooy li gën a màgg ci mboolem masala yi moo ci gën a yëkkati ko itam ndax loolu moo tax suñu borom tabaraka wa taala bind bindee fi wéetal googu ñu ko war a wéetal moo tax mu wàcce téere yi moo tax mu yabal yonent yi xeetu yonent yi suñu borom tabaraka wa taala da leen a yabal ngir ñu woote ci pas-pasu tawxid boobu di wéetal suñu borom tabaraka wa taala borom bi ne wala qad baasna fi kulli ummatin rasula an yabudu llaha wa jitanibu taaxut nee na xeet wu ndaw la lu tax ñu yebal ko mooy mu xamal ñooñee ñu ko yebal ci ñoom ne dañoo leen a digal ñu jaamu yàlla te wattandiku jaamu leneen lu dul moom borom bi wax ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu la ilaha illa ana faabudu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yebaloon naa lu la jiitu ay yonent yoo xam ne ku ma ca yebal dama koy wax yu nekkoon na xamal ñañ ko yebal ci ñoom ne man yàlla man rek maay ci yeyoo ñu jaam kon nag dañ ma jaam رب دال وخني ينزل الملائكه بالروح من امري على من يشاء من عبادي ان أنزلوا انه لا اله الا انا فاتقون نير داي الملائكة ملائكه جبريل عليه السلام دي اندي ليغا خامني ديغالم لا di ko wacce ci ku osoob ci jaam ñi kamu tànn ñu wàcce ko ci moom muy ab yonent kookee lañ ko jottiloo mooy mu xupp nit ñi xamal leen ne yàlla rek mooy buur bi yooyu ñu jaam ko kon nag dañ ko ragal wéetu yàlla boobu mooy baax bi yàlla bindeñu ci gir nit ñi suñu boroom daf leen a bindee noo xam ne loolaay li ñu baaxoo leneen lu def day wuute la ñu leen bind li mu leen bindee nga xam ne aw ñam lañ mën a lekk ndox kese mu sell moom lañ mën a naan noon la leen bind itam nag pas-pas bi ñu war a yor mooy pas-pasu طوشيت لول موي فطرة الله ورب ربنا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون borom ni da ngeen jëmale seen lépp seen jëm seen pas ci diine diine ju sori bokkaale ju wéetal yàlla xanifan mu ne loolu mooy baax bi nga xam ne mooy baax bi suñu borom bind nit ñi te yàlla nag lenn lu nekk na mu ko bindee kenn mënu faa wuutal leneen muy amati jariñ lu bokk la la mu ko bindee mu ne loolu nag muy diine ju jub muy diine ju wér mooy diine ju dëggu waaye nee na lu bari ci nit ñi nag xamuñu loolu ñu jële ci abi hurayra radiallahu anhu mu jële ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ma min mawludin illa yuladu ala alfitra nee na amul kenn kuy juddu lu dul juddu na ci baaxu war a wéetal suñu borom tabaraka wa taala bu ñu ko bàyyi woon rek kenn jeexitalul ci moom ci luñ koy xamal wala lu mu fekk ay nit nekk ca mu ne tundum rek bu boobaa tawxiid lay dund mu daal ne iqra'u fitratallahi allati fatara nnaasa alayha la tabdila li xalqillah nee na loolu bu ngeen ko bëggee wóor li ko jàng leen li suñu boroom ne loolu mooy baax bi mu bindee doomu aadama te kenn mun koo soppi té lolu moy diiné ju wër ñu jële ci ayyad ibn Ammar radiyallahu anhu mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci limuy net li jële ci borom suñ borom tabaraka taala ne wa inni khalaqtu ibadi khunafa'a kullahum dene sama jaam ñep dama leena bind ci tawhid ci wéetal ma man yalla وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وعندنا يعني الشيطان مو خمسه ياتين الانس ولا والجن شيطان نيت الجن يا نينا نيولين ديكل دين من من بجل لين في دين التوحيد وحرمت عليهم ما احللت لهم نيولين ارا ملال لوما لين دكانال وي ني واخنا نانغام دا فا اي نانغام دا فا اي di ayal lo xamne yalla ayal mo xam ay bis la mo xam ay ñam la neena di leen digal ñuy bokkaale suñu borom tabaraka taala ci lo xamne amuñu ci wenn lay wuñ ko mëna layal dafa bokk ci xéewali suñu borom tabaraka taala yi gëna mag yu mu xéewal nañ ko bu mënuñu ko ñàkk lu aaju ji gën a tar mu gën a yomb lépp loo xam ne aajoo gañ ko aajoo aajowoo noyyi moo gën a tar sax ni ñu naan noyyi moom fa toll yaa ngi koy aajowoo moo tax amul benn effort boo ci def foo dem dañ fay fekk ngelaw li ngay noy doo ko sax yobale foo dañ fekk ko fa ndax lool moy di gëna jëm nga xamne ne mën mënta xaar boko ñakkon rek sa dundu day daldi jëm fo la ca toppaat di ndox aaju wo naan ko ko itam mo gëna tar ni nga aaju wo nek motax gis nga moom itam mo gëna yomba ndox mo gëna a yomb ñam ñam doog a ñëw ci biir ñam yooyu it lu ca gën a mënta ñàkk loola gën a yomb boo seetee xorom mënta ñàkk ci ñam yi moo gën a yomb kenn dina ñam bi amul poobar wala amul kaani moo tax mënuñu ko lekk bu ko amul mën nañ ko lekk gis nga yooyu ni gën gënee seer xorom ndax yooyu dañoo mën a ñàkk loolu moo tax kon pas-pas bi nga xam ne mooy pas-pasu tawxiid nga xam ne moo gën a jëm ci loo xam ne doomu aadama bi da koo war a xam mooy aajoom ji gën a tar suñu borom tabaraka wa taala da ko jàpp nal jegeel ko ko lool moom la ibnu taymiya rahimahullah di wax ne awalu diin wa axiruhu wa zahiruhu wa batinuhu huwa tawxid nee na njëlbeenu diine fi mu tàmbalee ak fi mu yem la ca feeñ ak la ca nëbbu nee na lépp mooy tawxiid wa ixlaasu diini kullihi lillah huwa taxqiqu laa ilaha illa allah nee na diine lépp nga sellalal ko suñu borom amu ci loo sédd sa bopp waxuma laa di ko sédd keneen ala lillahi addiinul xaalis yëg leen ne yàlla kat diine ji nga xam ne moom lay nangu ci jaam bi moy diine ju sel jo xamne lépp mom la ko dox te nee na moy nga dëggal kalimatu la ilaha illa allah mu wax ne fa innal muslimina wa in ishtaraku fil iqrar biha fa innahum mutafadiluuna fi tahqiqiha tafadulan la naqdiru an nabdita mu ne jullit ñi donte ñom ñëpp ànd di wax kaddu la ilaha illa allah waaye nee na rawante nañu ci dëggal laa ilaha illallah rawaate goo xam ne mënuñu ko takk ndax wax laa ilaha illallah ak dëggal ko dëgg dëgg dëgg loolu lu wuute la nit yi dañ ca rawaate lool suñu borom tabaraka wa taala jegeel gi mu jegeel tawxiid mu def ko ci saar woo xam ne saar wu gàtt ci ay baat la waaye saar wu yaatu lool la ci ay maanaa néewaana ku ko mokkalul ci jullit ñi muy suratul ixlaas ci la suñu borom tabaraka wa taala xamle pas-pasu tawxid ba tax ñu tuddee saar bi ixlaas sellal dara kenn nekku ci lépp suñu borom tabaraka wa taala moo ko moom digle wu ci sax terewu ci itam su borom tabaaraka wa wax yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ak képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg a xam sa boroom bi nga war a jaamu mooy kan bul fa nekk di làmb ko bu la ko nit laajee itam xul huwa allah neel ki ñuy seet daal ndax ñépp a koy làmb xeet woo dem lu nekk am na lu ñuy jaamu lol fitan la yalla ko bindal nit ki faw ni muy wutel muy lek diko wutel muy nan lol lay wutel muy jaamu lolé muy jaamu nak diko lambatul bopam lolé suko la ko den koy wax ni huwa lolou ngay seet allah moy yalla suñu borom tabaraka taala ahadun kenn rek la rek wata wala ni ni koy jàngee dañ ko wara a non ko ko ko non do to tàbbi ci bokal ndax da ngay xam feneen leneen nekku fa dara nekku fa lépp suñu borom ko yow qul huwallahu ahad mom rek amul kenn ku ko bokal wala yusriku fi hukmihi ahada neena mom atten bi wu ci kenn suñu ngi koy jang wahdahu la sharika la lol lañu jang toujours وحده لا شريك له امر شريك يبالي دانيو جابلي يالله مو في ريك واي نك دا ام تيرم يي لوكو سي جوخ اي نيت ني يوري كو ديكو مانا دوخال نكو يالله يدوخال ديدت با فام ديك سي تك احد موم ريك لو دنج كو ورا خام كي سي دنج ييب اي جامل ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم nee na ña ngeen ñu ngeen di wut ci li ngeen waroon a wut ci yàlla ngeen koy wut ci ñeneen ñooñu seeni naw lay jaam lañu ibadun amsalukum in kullu man fi samawati wal ard illa ati rrahmani abdan kooku malaaka yi ñëpp a ngi ci biir kullu man fi samawati wal ard ko kenn génn ci comme mën a doon rek illa ati rrahman abdan laqad ahsaahum wa abdahum abda kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda kon ahad boobu noonu bu koy déggee bul ko jëm naan yàllaak boo xasee jàng kuloo law ahad da ngay bàyyi yàllaak yàllaak yàlla rek yàlla kenn ci boole nag yàllaak nangam yàllaak diw wala yàllaak déedéet yàlla kenn du ci boole laak yàllaak yàllaak kenn du ko wax ndax boo ko waxee rek kon jëppatoo ahad ji kon am na ku ko bokkal allahu samad yàlla ba tey moom mooy assamad te mooy ki ñuy jublu ci mbooleem aajo yi ndax doomu aadama bi ñu ko diggalee jaamu yàlla itam nag te moom dafa ami aajo dañ koy xamal fu muy ji ay aajo moo tax boo ne iyyaka na'budu yàlla yow rek lañuy ñuy jaamu wa iyyaka nasta'in yow la dimbandikoo ndax nag doomu aadama dafa tële wala xal insaanu daifa lu soxla ndimbal ñu xamal ko ne ba tey ci suñu boroom rekk la koy wut ndax mooy ki nga xam ne moo mën a faj aaju yépp ñi nga xam ne ñoo nekk ci al aalamul ulwi mu ne ñu ne ci kaw mooy malaayika yi ak ñi nekk ci al aalamu sufli ñi ne ci suuf muy nit yeeg jinne yi ñoom ñépp dañoo aajowoo suñu borom tabaaraka wa taala moom lañu war a ñaan moom lañu war a laaj seeni aajo seen xemmem tëf yépp ci moom lañ ko war a jabale ndax mooy ku mat ki ci mbooleem ay melo mooy ki xam ku mat ci ab xam-xamam waaye mooy ku lewet ki ku bari yërmande ki ci mataay bu mat sëkk mooy aji yërëme ji nga xam ne itam ku la ci yërmandeem yërmandeem daj na lépp wa rahmati wasi'at kulla shay nee na sama yërmande ëmb na lépp ëmb na ñëpp itam meloom yëpp noonu la ci mel daal di dagg nag lu koy boole kenn mu ne lam yelit jurut boo gisee mu jiital jurul doog a wax ne jureesu ko te bu ci mbindeef yi ñoom bala ngaa jur dañ lay jur ba noppi nga doog jur waaye gannaaw li ñu koy faral di jiiñ mooy ak jur yàlla moo jur diw wa qaalat ilyahudu usayru ibnullah wa qaalat ilnasara masihu ibnullah comme ñi ngi jël ay nit di leen wax ne yàllaa leen jur moo tax ñu njëkk a dàq jur boobu dama jurut kenn lam yalit yu yuulad jurisu kon jógewul ci kenn kenn jógewul ci moom ndax doomu aadama ñaar yooyu ko séq fu mu soqi koo muy ay waajuram ak ñu soqi koo ci moom muy ay doom li ñu tudd al aslu wal farqu yàlla na ñaar yooyu amul ci dara kon kenn mënta bokk ak moom kenn mënta bokk ak moom ndax mënoo ne fa ñu ko juree diw danoo bokk ci wetuk baay wala wetuk ndey foofu ngeen bokkee wala nga ne maa ngi bokk ak moom ci soqi ko ci moom muy sama maam wala muy sama baay walam yakun lahu kufuwan ahad kon dàq na kuy bokk ak moom dara waaye man ngaa bañ bokk ak nit dara ba noppi nekk naxta ngoom ngeen tolloo ngeen tolloo daraja doonte bokk leen mu ne nag moom kenn du naw lay ñuy sëy ñëpp ay jaamu leen kenn du naw leen ci ay turam ay turam moom rekk moo ko tudd ndax tur nag buñ koy wax day wuyu la tur wooy tekki waaye turi yàlla yi koo ko tuddee itam turu kese wa rek moo fay moo tax mu ne wa ja'alu lillahi suraka xul sàmmoohum mu ne am na ñuy wutal yàlla ñu ngi koy bokkaaleel nee leen nañ wutal ay tur ñooñu ñuy bokkaaleeg yàlla nañ wax nañu mel xul sàmmoohum wax leen lu ñu tudd fi bokk yàlla waxal ne la al rahim la wala al asis la wala al jabbar la wutal ko ay tur am tunabbi'uunahu bimaa laa ya'lam wala boog ndax ñoom dañuy xamal yàlla lu mu xamut yàlla moom ne amul kenn ku muy bokkaaleel nguur gi ñoom ñu ne ko am na ñooy bokkaalee nguur gi xanaa yaa ko yëgut waaye am na ñoo ko bokkal mu ne kon ñooñu dañuy yëgal yàlla lu mu yëgut kon am tu nab bi onoho bi maa laa ya'lam fil ard kon kaw suuf si daa am na fi xew ñu fi bokk yàlla nguur gi te yàlla yëgut ko boog mu ne am bi zaahir min al xawl wala boog ndax waxi kese la rek zaahir min comme gone yi war am gattax fasu gattax noonu di dawal naan aw fas lay dawal di wax ali di dawal te bu yegsee ci yow doo gisu fas am gattax ngay gis kon fu ñu fiy dandaleeg yàlla itam ak tuñ wuñ la mën a jox bu ñu yegsi woon ci li yàlla war a def buutu gattax boobee gone nga sax ngolay tal ci xaw naa gën a lañ koy defee moo tax mu ne bal suyina lillazina kafaru makruhum wa suddu anis sabil nee na daal ñi weddi yàlla ba di ko bokkaale seytaane moo leen rafetalal la ñu nekk wa zayyana lahumu seytaanu amalahum waaye bu dul woon loola danañu xam ne lii waru la nekk kon xul wallaahu ahad nga xam ne ñëpp ko mokkal wala boog li ëpp mokkal nañ ko ñu koy jàngalu baree baree bari di ko ñaane au lieu ñu koy ñaane na fekk ñu dund ko ba noppi na fekk ñu dund ko jàpp ne yàlla kenn rek la te nga koy doxale noonu looy wut yàlla doo ko wuti ci keneen as-samad mooy kii mën a faj aaju yépp boo ñàkkee boo feebaree boo jàqee mboolem aajo joo am bul dem di seeti kenn wala lenn diis ko suñu borom tabaaraka wa ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma wuyu leen xam nga suñu borom tabaaraka te taala teraanga ji mu defal doomu aadama lim ne wala qad karramnaa bani aadama nekk gim nekk buuram may ko mu am ci moom accès direct yàlla bu ko defoon ni nit ñi yéen jotu leen ci man boole naa leen malaayika yi mënu leen a yegsi ci man waaw boole naa leen malaayika yi ñoom laa leen boole ñooy seeni kilifa waaye déedéet ñoom malaaka yi ñoo bokk kilifa loolu sàkku rëy rëy la yàlla ci boppam defal la boppam di sa buur di la wax ne boo ko ñaanee mu wuyu la bu ko jaarale fenn loolu dara ju ko gën a kawe nga xam ne malaaka yi ñëpp loolu am yonent yi loolu lañ am yow yàlla may la lool nga di ko fa bàyyiwaat di jàpp leneen wala di yaakaar leneen loo xam ne sa moroomum jaam rek la la ngay wut nan ko aajowoo noonu la ko aajowoo loolu lu suufee suufe la ay alquran yi dikk di leeral maanaa suratul ixlaas bari na lool waaye dañ ci jël ñetti aaya rek bu yoo xam ne moom boo ko déggee rek da am tawxiid aaya bi surat al imran di aaya juróom benn fukk ak ñeent suñu borom dafa wax ne qul yaa ahlal kitaab neenu ahlu kitaab ndax booba ñoom ñooy ñi jàng ñooy ñi mën a werante ci wàllu pas-pas ne leen taalaw na ñëpp ñëw ila kalima wuy si genn kàddu goo xam ne sawaa'in baynanaa wa baynakum kàddu ga nun ñëpp moo ci yem kàddu ga amu fa buur ak baadoola amu fa njaatige ak surga ñëpp fa tolloo kàddu ga mooy lan allah naabuda illa allah bu ñu jaamu kudul yàlla te it wala nusrika bihi shay'a te buñ ko bokkaale ak kenn nga jaamu yàlla ñu buñ duggee ci jàkka gi ñëpp a yem lu doon waaye doon doon kilifa bu nit ñi rukkoo da ngay rukkoo bu ñu sujootee da ngay sujoot bu ñu taxawee da ngay taxaw amul ne kilifa la kon moom dañ koy jagleel moom mooy njëkk a ko mooy njëkk a sujjóot wala mooy njëkk a lépp moom ñëpp a koy nurale wala yattaqisa baaduna baadan arbaban min dunillah mu firi laa nusrika ji bu ñu yàlla dara mu ne bu ñu jàppante ci suñu biir ñenn ñi jàpp ne ñooy njaatigéey ña ca des ñooy boroom ña ca des ñoom ñoo dox seen digganteek yàlla loolu la wax ne bu mu ca am na ñépp nekk jaam yàlla fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun mu ne soo wootee ci kàddu gi nag ñu war a wéetal suñu borom tabaraka wa taala ci jaamu gi ñu koy jaamu jagleel ko cofeel gi ñu koy sopp ragal gi ñu koy ragal yaakaar gi ñu koy yaakaar duñ ko ci booleeg ab yonent duñ ko ci booleeg malaaka duñ ko ci booleeg wali duñ ko ci booleeg aw xéram duñ ko ci booleeg mala duñ ko ci booleeg dara loola mooy kàddu googu nga xam ne ci la suñu borom tabaraka wa taala wax ne na ci ñëpp wuy kàddu googu mooy kàddu gi nga xam ne moom la ibrahim alayhi saxaloon moom la borom wa jaalaha kalimatan baaqiyatan fi aqibihi laallahum yarjiun ko defoon kàddu goo xam ne dafa des ci biir njabootam ku ciy bëgg a génn àdduna da ngay dajale sa njaboot ne leen maa ta'buduuna min ba'di moo fi jógee lu ngeen di jaamu ñu ne ko buur bi doon jaamu moom la muy jaamu te duñ ko bokkaale ak dara kon boo xasee xam ne l'islam amul hiérarchie bu ci nekk boo xam ne ñii dañoo féete kaw ñi ci des amu ci ñëpp jaami yàlla lañ ndax dëgg la rawaate na ci seen biir ci ni ñuy toppee yàlla waaye rawaate googu dañ koo mënagul a xam fa kanamu suñu boroom lañ koy xamee fala tusakku anfusakum huwa a'lamu bi man ittaqa bu leen di sellal seen bopp di baaxal seen bopp gannaaw mënoo baaxal sa bopp nag te li nga xam ci sa bopp xamoo ko ci keneen kon nooy baaxale keneen gannaaw mënoo bokk ci sa bopp ne mën nii ku baax la te yow sa bopp xam nga ko xam nga sa bopp li nga xam ci sa bopp xamoo ko ci kenn loo mënul ci sa bopp nag kon doo ko mën ci keneen moo tax borom li mu njëkk a tere dañ ne seen bopp seen bopp ci la bare kon keneen taxul ñuy wax ndax seen bopp 24 sur 24 yaa ngi gis sa bopp loo nekk xam nga ko ñeneen ñi nag léegi mu am wax doo xam lu ci lu njëkk da nga waxtu yoo xam ne ñooñu ngay baaxal xamoo ci luñ ne xamoo ci luñ ne bu def nga bëgg a dégg nañu baax la baax bu ma sëkk loolu la borom bi tere ne bu leen ko def huwa aalamu bi man ittaqa yàlla rek mooy ki xam ki ragal yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg ragal yàlla ci la ñuy matale ak baax lolu kon suñu ko déggé ci aaya boobu japp né itam ci biir diiné ci itam nepp ci ñenn lañu di top ñi ci dess lolu dañ ko wara xam doomu li muy morom ma ci diiné moy xamal ko ndax doomu aadama ki ci jitu moy yonent sallallahu alayhi wasallam sallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam borom bi waxata li ak mom li muy defal nit ñi yatloo alayhim ayatihi wa yusakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين لولو يونت بي لورا الا لين ديفال واي نيو لا موي فاج سيني سوخلا موي فاج سيني اديو مو لين دي ويرب بوغين فيدر ديد لولو يونت نيكو سي موم يتلو عليهم اياتي لين دي جانغال القران ويسكيهم دي لين يار سي نين دوند القران ويعلمهم الكتاب دي لين ليرال لي القران واخ بوغين معناني والحكمه دي لين لير سنام سيفير loolu mooy mission yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi gis nga loolu mooy mission bi kon keneen comme mën a doon nit lim la mën a jëriñ ci diine mooy jàngal la jàngal la xamal la diine bi loolu dong nga koy dee leneen doy wëpp ko boo jàppee ne am na leneen loolu lum la mën a defal ci diine lu weesu jàngal la loola bu boobaa yaa ngi ci ak càngat gis nga ña ko jàppoon yawma tuqallabu wujuhuhum fi nnaar yaquluuna yaa laytana ataana allaha wa ataana rasula nee na bis buñ leen di naq ci biir sawara di wëlbati mu ña toppoon keneen dul yàlla ñun ak a neexoon ñu toppoon yàlla toppoon yonent bi yaa laytana ataana allaha wa ataana rasula mais ñun leen ku ngeen toppoon ñu ne inna ataana saadatana wa kubaraana fa adalluuna sabila ñun de sunu sang ya ñan woon ay sang jàpp ne ñoonu gën ci juddu sax ci gën fexe nañ ba euh, wan nit ñi ne ñoom ñoo leen gën juddu rëy rëyul ci seen kanam ba nit ñi jàpp ne ñoom mëtatuñu nit buñ nekkee seen wet mëtatuñu nit waratuñoo wax amatuñuy xalaat lu ñu waxit ñoom seet ndax yal na maanaa wala yal na maanaa wax moom jël jëfee rek mooy kubara ana mu ne ñu mel noonu lañ toppoon nag fa adalluuna sabila ñooñu ñooñu sax moo tax ñu ne rabbana aatihim di'fayni min al adab yàlla kon gannaaw ñoonu ñoonu sànq foo mu mbugal benn na nga leen mbugal ñaar wal anhum laanan kabira tey na nga leen rëbb rëbb bu a mag ki nga xam ne moom moom la yaakaaroon nee na lu mas a wax mu ne waaw tey mu naan buñ ko dóoree benn yar nañ dóor kooka ñaari yar rabbana aatihim di'fayni min al adab wal anhum la'nan kabira ñaareelu aaya bi mooy fi borom bi xam lee ak nu mu mën a may nit ndax ñu bari itam dañu jàpp ne kii daal moom dafa yor ci ciiri yàlla yi ndax xam-xam bi mu am ak cër bi ko suñu borom tabaaraka wa jox kon kooku daal moom duutu jaamu bi yàlla kese comme nun rek waaye am na ci yàlla loo xam ne nun amuñu ko kon war na noo mën a yem ci moom borom bi ne maa kaana li bashar an yu'tiyahu llahu alkitaaba wal mi ngi limité doomu aadama fi mën a yem neen amul benn mbindeef suñu borom jox ko téere xam loolu fi la gën a yam fi la daraja yam bi ab yonent jox ko téere wan xukuma jox ko ak gu mu dégg téere boobu wan nubuwa jox ko yonent kooku moo ne ci kullu wilaaya am nu boobu moo ko féete kaw yooyu nga xam ne doomu aadama fi la mën a yam ci ay daraja nee na ku mu ko mën a jox taxul mustan suma yaqula linnaasi koonu ibadan lii min dunillah kon mbaaxul nit ki wala darajaam wala xam-xamam bu mu la ndax tax nga bëgg a jàpp ne yow kooku nga war topp teewul jàppal ne ba tey jaamu bi yàlla walakin koonoo rabbaniyin kooku yàlla jox cër yooyu li mu sañ digganteem ak nit ñi mu teg leen ci yoon woo xam ne dañuy nekk jaami yàlla dëgg dëgg dëgg koonoo rabbaniyin bu ñu leen askane kenn ku dul yàlla su ko bëggee ne fan lay jaar ba nit ñi nekk jaami yàlla bi ma kuntum tuallimuuna alkitab gis nga li ma la waxoon ne doomu aadama lim la mën a jëriñ mooy xamal la ñëwaat la boo bëggee def nit ñi rabbaaniyiin tuallimuuna alkitab wa bi ma kuntum tadrusuun li nga leen di jàngal ci téere bi ak li nga leen di jàngal ci lii leeral téere bi foofu nga mën a jaare bañ nekk jaami yàlla waaye bu ñu la déggalee te jaarale woon foofu ci yow la ñu yem yow la ñu daal di teg fa ñu tegoon yàlla maanaam nit ñi dañoo ñëw ci yow di seet yàlla da nga leen di wax da nga leen di wan yàlla waaye soo ko dañuy jàpp ne yow ku fi toog boo dul yàlla yi yaa kon kon yaa ko fi toogal lu ñu waroon a defal yàlla nañ la ko defal lu ñu waroon a ñaan yàlla nañ la ko ñaan ndax yow lañ gis rawatin nag nga di leen woo ci sa bopp di woote woo ay cër yoo xam ne am na ko te dara amu ci aw lay kon aaya boobu itam bu ñu ko xamee da ngay xam li nga séq ak sa moromi doomu aadama même bu la ko bëggoon def ne la koonu ibadan lii nekk leen samay jaam ndax jaam koo xam ne loo ko digal mu loo ko tere mu baax te ndigal la du ko jottali waaye ci yow lay jóge sa ndigal bopp lay sant ci ne loo ko digal mu ne ndax yàlla ma ko digal booba rek waaye su fekkee ndigal li ne doo laaj lii ñu la wax fu mu luy dalil lu may daga naan gannaaw ci moom la jógee kon moom ngay topp Adi ibnu Xaatim dafa nekkoon ca nasaraan ya bi mu duggee ci lislaam nag dégg suñu boroom tabaaraka wa taala bi mu wàccee ay ittaxasu wa ruhbaanahum arbaaban min duunillah ne ñoom yahud ya day dañoo jàppe seen suure ya nasaraar ya jàppe seen labbe ya ay yàlla mu ne ah mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah ñun jàppe ñu leen woon ay yàlla de yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko moo tax daawuñu leen digal loo xam ne ñoom ci seen bànneexu bopp la leen ko digale ngeen def mu ne ah kay boo koy lu mu digal moom dañuy def ndax duñ leen tere loo xam ne ci seen bànneex lañ leen ko teree ngeen bàyyi mu ne ah kay mu ne ko tilka la lahum loola mooy jaamu gi ngeen leen doon jaam kon ndigal loolu koo ko jox doomu aadama laa war a jottali ndigal waaye waru laa digal waru la waru laa digal ndax ndigal la ciy digle yéen la bopp digal dala koy jottali ci wax jottali ko ci jëfe ko ci sa kanam ni nga xamee ilimaan du taxaw fee naan nit ñi kàbbar leen ñu kàbbar mu ne rukkoo leen ñu rukkoo toog leen taay di taay ba sëlma de dañoo ànd ko ñun jiite leen da leen di jiite dañoo kàbbar ci seen kanam lu mu def ñu def ko waaye bu taxoon fekk comme ni soldaar yi def nga xam ne seex ma day tax ne de soufflé lu mu soufflé ñu def loola moom du ko def moom waaw bu dee yëkkati seen loxo ñu yëkkati moom du yëkkati sëgg leen ñu sëgg su jóor leen ñu su jóor jóg leen siggi leen loola su fekkoon te sañ-sañ nit da ko am ci morom ma kon ki jiite noonu lay def waaye lislaam lu ne ci nit di digal te du ko def bu ko def wala boo koy def ndigalam bu mu tax nga def ko lislaam lu ne ci nit di digal rek jottali la digalu la daf lay jottali daf lay jottali wa ma ala rasuli illa al balaax même yonent bi dara waru looy balaax rek balaax wa ma ala rasul illa al balaax yaa ayyuha rasul balligh balligh maa ursila ilayka min rabbika wa in lam tafal fa ma ballaghta risalata balligh tabligh rek jottali rek a fi nekk waaye dara luy jógee ci yow sa bopp daa am fu mu jógee egg ci yow jàng kii jàngalu mu jàngul jottali ko li nga jàng waaye bu ko wax sa waxi ko waxee lii yàllaa ko wax lii yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ñu génn ci taxaw fee loolu la suñu borom xam na ne nit ki ak daraja ba mu mën a am bu mu tax nga jàpp ne lu mu def rek noonu la nga dégg lu wut ah gannaaw diwa ko wax rek moom noonu kooku moom lu mu la mu ko war a xam waaye bu ko wóoloo ba même bu tudd lu aaya tudd lu nga ne rek wóolu naa ko xam naa ne moom fu wér wax nañ ko diw daal bu la ko waxee moom fu wér la ko teg fu wér foofu anam borom bi def ne qul haatu burhanakum lu leen waaye wax na andi preuve in kuntum saadiqin sun borom sax bim ne man ya may yàlla dafa andi ay borom ha sa khalqna man yàlla ba bind fa aruni ma sa xalaqal la siina min dun ñeneen ñi may bëgg yéen may bëgg boole japp ne wone suma jaamu man rek man yaw man lii la def ñeneen ñi may boole lu mu def lu ñu def fa aruni ma sa xalaqal la min dun beneen bi ñetteelu aaya bi bi gën a leeralaat suuratul ixlaas ci suuratul isra suñ borom ne xul neen ud'u llazina za'amtum min duunihi yéen ñu jàpp ne am na ñeneen ñu bokk yàlla nguur gi kon bu ngeen amee aajo diis leen ko ñooñe ñooñe day falaa yamlikuuna kasfa durri ankum wala tahwila nee na mënuñoo teggi lor ci yéen mënuñu ko wëlbati jëme ko ci keneen bu lor jëm si won ci yeen feebar wala ñak wala xet lor jëm mën a doon bu leen dalé mënuñ ko teggi bu jëm see ci yéen ci excès ko mënuñu ba ci jëme ko fenen té ñoom ñooñu ngeen di yaakar sax bu dee ñu bax lañ yattaquuna ila rabbihim alwasila ko fi yaakar té muy ko bax nga bëgg wékku ci moom moom de moo ñu mëgay wut moom lu ko jot li borom boromam tabaraka wa taala ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu kooku ngay yaakaar moom ma ngay yaakaar yërmande yàlla wa yaxaafuuna azaabahu ma ngay ragal bugalul yàlla ndax inna azaaba rabbika kaana mahsuura koo xam ne moom nga bëgg a wekk saytu bu dee bu baax moom ma ngay wut ma ngay góorgóorlu ci jaamu yàlla lu ko jegeel boroomam mi ngi yaakaar yërmande yàlla mi ngi ragal mbugalum yàlla ko kon tëleegu la yooyu yooyu rek ngay wut daal di wut yërmande yàlla ngay wut. bëgg a mujj ci mbugal te moom muccëgu ci moom itam loolu kon dana gën a xamalaat ne kon mbir mi ci yàlla rek lañ koy wuti doomu aadama bu ñu xamee loolu parce que erreur bi rek mooy dañuy jaawale nit ki soxla si ñu war a mën a faj ci moom dañ ko koy weesale lekk léeg waxuñu bu kenn déglu kenn wala bu kenn topp kenn waaye koo topp di ko ànd li mu la mën a jariñ mooy xamal la diine ji da lay xamal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko loolu rek nga koy def jottali rek balaa bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def xëy na moo la ko njëkk a jàng moo la ko njëkk a xam mu jottali la ko ndax moo it des ko jottali loolu bu ko xasee xam rek bokkaale dañ cee daal di mën a mucc boo xam ne nit ki fi nga yem ak moom waaye même bu présenté wul boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dafa wax ne présenté wul bala laa nit ñi def ne malaaka nga wala yàlla nga xul neel innama ana basarun mislukum nit laa ne yéen damay lekk di naan di nelaw di yow di sonn di ami doom ay soxna ma nit la bu dee nit gi mo mari ñi ko bokk ñen ñi dañu bokk dañu ñoom duñ nit mo ñen ñi buñu bëgg ki dañu wone ne duñ nit lekk gogu buñ bëgg nga gis fuñ koy defee naan ga duñ bëgg nga gis ko fuñ koy defee fa nelaw duñ bëgg nga gis ko leen luy tax nga niro ñoom rek buñ koy def dañ koy nëbb ba nga defee lu ko def suñu ko mo du lekk dañu dégg sa ñu rek tur yalla lay dundé Hmm? wa maa ja'alnaahum jasadan laa ya'kuluuna ta'aam loolu la suñu borom wax nee na yonent yi defuma leen jëmm yoo xam ne bu ñu lekk ñam dañuy lekk ya'kulu mimmaa ta'kuluun wa yashrabu mimmaa tashrabuun day lekk li ngeen di lekk di naan li ngeen di naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawu ci nëbbu dara moom waaw même fu muy dem sax faji aajoom sax day ànd ak nit nëbbu ko kenn xanaa lam na ca war a sutur day sutur rek loolu suturaal moom mooy teguñu ci bët waaye xam nañ fi nga ne xam nañ li ngay def luy nëbb nag mooy wax lu bëggoo ñu xam fi nga nekk li nga fiy def waaw am ki nga ànd bu dugg ci toilette bi kooku daa sutur lu waaye xam ne na xam nga dem ci toilette bi daa suturu nag daa waaye nëbb tuut waaw bu doon nëbb tuut du bëgg nga gis ko mu dugg ci toilette waaw waaye ki nga xam xam ne moom dugg na ci toilette kooku nëbb tuut dafa suturu sutur lu ak nëbbu bokkut sutur lu lañ lu sant waaye li nga xam ne moom ak niite la te loolu lu dagan ci yow nit ki dugg ak néegam soxnaam ci biir néegam fanaan fa kooku nëbbutu xam nga ne soxnaam jigéen la nekkal ci néeg bi da koo suturaal nag da koy suturaal waaye su fekkee da nga bëggul sax nga xam ne moom dara nekk ak kenn ah kooku nag kon boobaa ma ngi lay bëgg a wan ne mu bokkale mu ak yow dara ngir bëgg laa donee waaye xamal ne kooku comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom présenté wu ne te keneen ku mën a doon ci suufam nga nekk jàppal ne kon loolee yonent bi wax ci boppam moom moo nekk ci moom qul innama ana basarun mislukum li ma wutale yéen nag mooy yuuxa ilayya dañ may wax yi waaw dañ ma wax yi loolu daal moom ma wutale yéen te li ma wax yi itam nag dama leen koy jotali waat xanaa ngëneel li ma am rek mooy ci man la njëkk a jaar man la njëkk a jaar nga yabal nit ñi ca pénc ma ne leen boo demee nee leen nangam ak nangam ak nangam te nangam jooju nga leen di wax yaa ñoo ma ko bokk te nangam ba nga ca am mooy yaa leen ko jottali waaw mooy barax bi mooy tablet bi. allahu alamu haysu yaj'alu yàlla xam na fi muy def leetaram ki koy jot jottali loo xam na waaye nag loola rek la ca am kon. ñetti ay yi buñ ko setantale boole ko suratul ikhlas dañ koy bàyyi waat xel bu baax nañu bàyyi xel baat yi bu ñu romb rek jàng qul huwallahu ahad rek jàng qul huwallahu huwa jool gis daf ko def huwa ki nga def ci sam xel di laaj kan moo mën a faj aajo yi kan lañu war a jaamu kan moo ñuy dugal àjjana huwa moom kooku ngay laajte allahu waaw moo tax mu def ko def huwa day jékki-jékki ne huwa moom dafa jékki-jékki ne moom moom am na lu muy tontu xam nga boo xelan waaw waaw kooku moom kan la li ma soxla bu may faj kan moo di dugal àjjana kan moo di ram kan moo di mu ne kooku ngay wax di ko allah noonu la tudd waaw sunu soxla yéen sunu aajo yi moom ci àdduna ku nu ko faj mu la asamat mooy ki nga xam ne aajo yépp ci moom lañ koy wuti ñu ne waaw kooku ndax bu ma jutiwul ci moom ndax am na fi mbokk ma dem ci mbokkam nga ne lam yëlit wala mu yóolat waaw waaw bu dul mbokkam itam ndax am na fi ko am dara di imam mu ne la wala yëpp la ko foon a amul benn nationalité bu ñu ko soññoon wax dañuy wax ne suur lance mooy identité yàlla waaw xam nga identité na sa allah sant wa mooy ahad profession ba mooy sabat dañuy andi say waajur mu ne lam yëlit malam yool ñu mu lam yëpp la ko foon ahad amul benn nationalité bokkul ak kenn nationalité mooy dal carte d'identité buñ ko soññoo ko tudde mooy xam la suñu borom tabaraka wa taala kooku nag boo ko xamee gëm ko nag amul kenn koo mën a andi bëgg koo jox dentité boobu andi nit teg ko ne nga ahad la andi sa waay ngay wax bëgg def ahad déedéet da nga ñu doon kenn diw kenn rek la déedéet du kenn même yonent yi duñu kenn yonent ñu bari lañ qul ma kuntu bid'an min ar-rusul qul ma kuntu bid'an min ar-rusul yonent bi sax nekkoo daf ko wax ne waxal ne ko man doomu ñëpp ba tey yi du kenn malaaka yi duñu kenn yàlla rek mooy kenn ahad ji rek ci ngeen njëkk a daanoo boo amee sa waay teg ko du ahad samat nga bëgg ko def samat muy faj aajo yëpp moom sax ay aajo fajuwut yow sax mootu yaa koy fajal ay aajo lam yëlit wala mu yóolal lam yëlit bu amul lay doon ci bopp yàlla rek la ñàkk am doom nekk aw tagg ci bopp waaye nit moom bu amul doom lu ak maan ki la ci bopp wala mu yóolal moom ma ne si koo xam fi gis boo doon kenn juru ko anam sa waay ji ngay palaasal ci boppam teg place bi yàlla nañ nañ ci moom lam yéene baram yoon bu ñu nee lam yéene moom amul ah, doom ko xas ñu ne la wala mu yóorat kooku mënu ko nga ne walam yakun lahu kufuwan ahad déedéet ay yu baree baree bari cër jox bu nekk am nañu ko ko ëppale ñoo ne xamoo leen kon yàlla rek tegal xulwa ci kawam waaw nee na sama waay ji ba xam ndax ahad lam ndax lam yëg walam yoot yoot lam lam déet wala yokkul la fu an ahad lam déet boo ko defee daal ko dégagé teg ko fële amu ci benn bu mu mën a daal ah, kooku def kon la sharika la dee daal di ñëw dootu ko bokkaale kenn da ngay daal di am tawxiid sabab yi tax nag pas-pasu tawxiid nit ki di ko ñàkk dinañ ci tudd ay masala bu njëkk bi bokk na ci liy xañ nit ki pas-pasu tawxiid boobu nga xam ne moom ci la ko yàlla bindewoon mooy yar bu baaxut mën a fa mu sosoo ci ay way juróom nag lay tàmbalee bokkaale li gën a bari pas-pas bu tawxiid li koy xañ nit li gën a bari da koy donn te fa mu jóge gis nga ñu ko wax ne innama asraka abauna min qablu wa kunna zurriyatan min baadihim gis nga loolu inna loolu la ñu laayee ci kanam ñun kat suñuy bàyyee bokkaale woon te ci ñoom lañ sosoo kon loolu dañuy bokkale innama asraka abauna min qablu te wa kunna zurriyatan min duni min ba'di borom bi nag innahum arfaw abaahum dallin dañoo fekk seen bàyyi sànq fahum ala azarihim yuhraun ñu daal ñu xelu rek di waax ku naan sama bàyyi defoon benn naa ko def téeméer lu mu defoon téeméer naa ko def mbaa sa bàyyi lam defoon baaxul ah loolu ñu góor a woo soo bàyyi defoon benn rek dinaa ko yokk doo njëkk a vérifier ba xam sa bàyyi daal ñu wóolam ne ah moo tax borom ne awalaw kaana abaahum laa yaqiluuna shay'an wala yahtaduun doonte sax sa bàyyi leer nga dem kanam matul woon gindi guwul woon waaye teewul rek nga ne moom ngay topp déedéet yow kay da nga ko war a corriger la mu defoon ñaanal ko mu jéggal te borom ne wala si ne jaa'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li la allasina sabaquuna bil iman yàlla yal na nu jéggal jéggal sunu mbokk yi nu jiitu woon ci ngëm yàlla li ma ko faral di misaale ki doon dem ci yoon am lu wadd ci bagaasam am lu wadd wala daal gis bu mënu ko yóbbaale kooku danaan ndax yàlla ñu topp ci sama gannaaw xëy na ñu andil ma ko te di nopp sa gannaaw mooy ñiy sosoo ci yow ndax ñooñu bari na loo manqué leen sax njaboot mën nañ la koo mottaleen wa naktubu maa qaddamu wa aathaarahum borom bi nee na damay bind li nga jiital nga xam ne def nga ko bam dem waaye li nga fi bàyyi itam te li nga fi bàyyi lu ci gën a foor doom amut lu ci gën a foor doom amut kon boobu da ngay yaakaar mu mottalil la yi nga defoon ku ne si rëcc rëcc yi nga defoon itam kon sa bagage boobu wadd wala boog nga demoon bu mën a ko yóbbu nga bàyyi ko fa yaa ngi naan xëy na ñii ñëw dañ na ko indaaleel waaye ñooñu yegg si nga ne leen ba andil nga leen sama dàll wa waddoon wala sama bagage ba ñu ne yow wenn dàll nga wadd woon waaye ñun dañ faa bàyyi suñu ñaari fa bàyyi waaw fi aw dàll mën naa fi bàyyi yépp man xam ne man gënumaa baax waaw loolu la ñuy def mën na wax nga musiba la la la fa bàyyi woon mbaa mbaa corrigé woon ko mbaa bàyyi woon na fi ba fa fentoon yépp mbaa tere nga ko nga ne ko dama ko yokk waaw ah, sa bis ya nga ko bàyyi woon léegi ay bisi bis laa ko def leen waaw ah, nga musiba la nga nga musiba te nga ma gàcce ah, loolu day am nga xamee ne yow nga xëy nit dana fa nekk barab ba yàgg ñu déplacé ko yóbbu ko fu gën a kawe bu laajee ñu ne ko sa doom ja sa doom ju baax jëm mokkal alquran sa ñoom di tënku ci njub te yow yaa ko moo tax te ñu yëkkati sa dara waaye tam nit mën na faa dégraté nit ci tam ci sa doom ja nga xam ne kat yaa ko tegoon ci yoonu baaxut ma nga ci njaaxum bu rëy a rëy te am nga ca wàll waaw. yaxmiluuna awsaarahum kaamilatan yawmal qiyaama wa min awsaari llaziina yudilluunahum bi xayri ilmin borom bi nee na dañuy yanu seeni bakkaar ba mat waaye yanuwaale ci bakkaar yi ñi nga xam ne yaa leen tegoon ci yoon wu ñu sànku. wa min awzaari allazina yudillunahum bi xayri ilmin ala saa ma yasir kon ko yar lañ ko toqee loolu dana ko dugal ci bokkaale waaye nag bu ko ca yaree itam nag bu demee ba am xelam ñëw daa war a corriger boppam boo demee ci borom laxdar yi gis nga la ngay wax na awwalu waajibin alal mukallaf la jëfandikoo tasxiixu imaanihi xam nga ki judd ci lislaam fekk na fi ngëm yàlla waaye ngëm yàlla gi nag daa jar réparé corriger da ngay corriger sa ngëm yàlla gi nga li nga doon say bàyyi say maam soo demee ba màgg ba jàng bul ne rek li sama bàyyi sama maam nekkoon noonu la déedéet xoolaatal nag bëti xam-xam xoole ko li sa bàyyi doon dund ak li sa maam doon dund tasxiixu imaani yi awwal waajibin alal mukallaf soo demee ba nekk mukallaf li nga war a njëkk a def mooy réparé sa ngëm waaw ba mu nekk ngëmu aada waaye nga léegi ngëm bu am référence léegi waaw gëm koo xam ne loo ci wax mën koo delloo ci alquran mën ko delloo ci sunna boobaa am nga original nag léegi ndax bu njëkkoon photocopie nga yor waaw di nga doon say baay photocopie la rek photocopie maanaam photocopie bu fulu la boo xam ne sax dara fee jotul waaw photocopie bu ba nga xam ne sax lettre yi dutu dem ci machine ba ne mu génn la bu bees waaw mooy alquran ci alquran ngay dellu mu tiireel la taw it bu bees tëkk génneel waaw tasxiixu imaan yi boobu da ngay da ngay daal di bu leer nañ ndax machine moom mi ngi fi toujours moom boo ñëwee rek alxuraan moom génne la tawxiid bu leer nañ waaye su fekkee nag introsé woo alxuraan delluwoo ci alxuraan delluwoo ci Yonent bi sallallahu alayhi fi nga yam rek mooy li nga fekkoon li nga doon innaa wajadnaa rek ci leer ah la ca nekk ci ay erreur yëpp da nga ko yóbbaale bu boobaa ñaareel ba sànq goo xam ne nag seytaane koy sànq nit ñi. ndax seytaane moom moo dal ne wala udillannahum la wax danaa leen réeral ñoom ñëpp waaw wala udillannahum danaa leen sax la aqudanna lahum siratakal mustaqim waaw la usayyinanna lahum fil ard seytaane dafa te lu mu ci wax da koy giñ tawkiit ko laam yooyu yëpp laamul xasam la wala udillannahum wala am umanniyannahum wala amurannahum fala yuqayyiru fala yuqayyiruna xalqallah motax borom bi ne wa inna shayatin la yuquna ila awliyaihim li yajadilukum shaytan dañuy inspirer ñi fi tété ak ñom ki nga xamne fexé na ba shaytan boole ko ci langam da koy da koy jox ay inspiration diko jox ay xalat lay la ci diko won ay gënt diko won ay mbir mom mu defé dafa yegg fenn man da koy ma sax muy naaw ci jawu ji wala muy dox ci dox mi mu dañ ma légui wali yu la dañ ma fenn ba ko wax na dañ ma fenn fekk na shaytan mo la fenn gis nga suñu borom dana ko wax malaaka yi bëggal ëllëg wa yawma nahsuruhum jami'an summa naqulu lil malaa'ikati a haa'ulaa'i iyyaakum kaanu ya'buduun qaalu subhaanaka anta waliyyunaa min duunihim bal kaanu ya'buduuna al-jinna aksaruhum bihim mu'minuun gis nga bari waa ko naan malaaka laa gis wala dañ naa feenu jinne yi nga gis ndax malaaka yi ñoom nee nañ wa maa natanazzalu illaa bi amri rabbika nun dun wàcc ci lu dul ndigal yàlla la wa maa bayna aydinaa wa maa xalfanaa sunu kanam ak sunu gannaaw lépp yàlla ko yor ñun sëñu di taxawaal di seeti ku lu neex ak di ko wan lu neex déedéet moo tax borom bam ne leen waaw ndax nit ñi yéen lañ doon jaam a haulaai iyakum kaanu yacbudu qalu subhanaka bal kaanu yacbuduuna al jinna nee na nit ñi jinne yi lañ doon jaam aksaruhum bihim muminoon li ëpp ci nit ñi jinne lañ gëm waaw kon moo tax borom ne wa inna shayatina la yuquuna ila awliyaihim li yujaadiluukum waaye wa in ataatumuhum innakum la musrikun ku leen topp tàbbi ci bokkaar ñetteel ba mooy yàq sam xel nëgootoo jëfandikoo sam xel yàlla bi mu la defee nit jox lam xel dofoo yorum xel booba la sa responsabilité bopp engagé ba mu la joxem xel jox sa borom xel fekkoon ne yow da dana la dépendre ci sa xelum bàyyi waaye bu am xel yow sa xelum bàyyi ci lañ la boole waale yéen a xelam ci ngay dundal déedéet lim joxe sa bàyyi xel sa mag sa yaay dana jox sa xelam bopp yooyu tam li nga yore sa bëti bopp xam xoolee woo sa bëti bàyyi dégloo woo sa noppi bàyyi sa bëti bopp ngay xoolee ah bu jiit sa amoon sa bàyyi bu fàttali daal daal ci doj da nga bàyyi ba toog dañu ne loolu ko yor dañ baa ci kanam de xam kon bokk leen di bët moom gisu ko ba daan na cee dal yow nga gis ko noonu nga yore sa xelam bopp yow itam moo tax gis nga ñooy dugg sawara ëllëg الذي أن ربي لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب سيد بن نغو ولا دغ ني دون واخ القران دي واخ سونا يونت بن نغو لينا دغ ولا سا نو جيفاندي كو سوجي خال رك بوكال موم ادي وول صاح موم جان خال لا رك بو جيسه ابراهيم عليه السلام ني مو ديمو سي بوكال ييب لوسي بو خال رك لا اندي نياتي بوكال ييب كي ووتو ني موم دنج كو ورا جام الم تر الى سي حاجه ابراهيم في ربه ان اتاه الملك ka demoon moom yàlla la ndax moom mën naa dundal mën naa rey daal di jëlee ci kaso ba ñaar rey kenn ki bàyyi kenn ki ne dundal naa rey na xam nga loolu ci ñi nit ñi daal di tàccu eh waa def na ko def na ko waaye Ibrahima jàll ci beneen boo xam ne amul dut ne ko yàlla day jant bi mi ngi koy fenkale ci penku yow nag sax jant fenkal ko ci sol comme ni la yàlla mën mën ko xam na loolu affaire waxee rek la nit di ko xool ba xam bu def daal di tontu commencé tëkku yow naa la def nangam tontuwul kooku hikam fi kafa waaw xam nga mu dem fekk ñuy jaamu biddiw yeeg weer yeeg yooyu mu leen wax d' accord léegi yéen biddiw bi mooy yàlla d' accord ñu dem tuuti biddiw ba suuf mu ne a ah, yàlla ñuy suuf ana ana yàlla léegi ah mu ne waaw d' ñu dem tuuti mu ne ana yàlla jant ba fekk ñu ne kii na haasa akbar na ba mu sooxee mu ne xam ngeen lu mu doon indi wajjahtu wajhiya lillazii fatara samaawaati wal arda haniifan wa ana minal mushrikiin خالجين لوم دور نين في باي يب تجام يلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون بان تي جالي تي نيغا خامني نيوم اي يالا خيرم يي نيت لا موم لا نيو من الله لاكيدن اسلامكم بعد ان تولوا مدبر فجعلهم جساسا الا كبيرا لهم فك سين خيرم يب دم تك باي خيرم بو ماغ مانا غالو كو سيني ني نمن فعلها سبي الهتنا ما سوني خيرني كان مو تي ديف qaalu sami'naa fatan yuqaalu lahu Ibrahim ñu naan déggoo nañu Ibrahima di leen kontaan de qaalu fa'tuu bihi alaa a'yunin naas di leen andi ko ñëw a anta fa'alta haazaa bi aalihatinaa yaa Ibrahim waaye Ibrahima yaa def suñu xërëm yi nii mu ne bal fa'alahu kabiiruhum haazaa lu si kay li mu laaj mooy xërëmu mag bi moo leen moom benn xërëm yu ndaw yi dawul te leen loolu war a nekk xel loolu la war a nangu ne laaj leen in kaanu yantiqoon waaye su ma nukki soo ana ba mu ne laaj leen xere bi dañoo sëgg ne ah xam nga ne ñii dañu wax kat suma wa adda alima haula yaftiqoon mu ne ko afata'buduuna min duuni llaahi maa laa yanfa'ukum shay'an wa laa yadurrukum uffin lakum wa limaa ta'buduuna min duuni afalaa ta'qiluun xanaa yéen ngeen xel lu ca def xarre boobu lakk leen ko wansuruu aalihatakum in kuntum faailiin ah ba mu leen yooyee amatuñ dara dañoo xam ne lakk leen ko rek kii daal dañ ko lakk taxate ngeen koy gis gi dañu leen moom continué gis nga kon ñett ñooñu ñëpp ñeent ñooy jaamu nature beeg ñooy jaamu xeeram yu yëpp ak yëpp dénoncé na ko ci wàllu logique rek ci wàllu xel. la leen teg andu leen benn dafa ànd ñoom ci seen logique ba wan leen ne lii ngeen nekk ay caaxaan moo tax bokkaale moom moo tax ñu ne bu ñu doon dégg wala ñu am xel rek. dafa la def yàlla defal ak béjjën def ci pettaaw def ci original bu béy woon nekkoon wala xam ñu tër ko rendi ko béjjën original bu béjjën ba mën ta aar borom yow ñu jox la foo béjjën bi nga xam ne sëñ ba lañ ko pare la nag mooy asam nga sa kër ah, loolu béjjën kay borom ba original te bañ koy rendi ci béjjën ba la jàpp rendi <laughs> béjjën bi aru ko ah mu bëgg dara sax waaye li a bari ci ñiy def njibar yooyu yow ma leen di jibarloo yaa ci wàllu adduna yaa leen tare leen sa oto bu rafet ngay gaar jur si gër fekk ko ci moom jant boo xam ne bu ne naa toogal sax doo xam koy toog waaw kon kii bu fekkoon ne mën na li ma ko faral di wax ni ki naan dama lay dama lay dama lay dama lay seetal déet lu mu war a wax mooy wan ndax yow yaay seet yow yaay seet day seet mu ne moom day seet da lay seetal man maa ngi seet sama bos daa réew seetal ma da daan wan ma ko kay na ko kaw waaw damay wane waruñu tudd ay seetkat waaye ay wanekat lañ war a tudd te wax ne am na wanekat bu nekk fii loolu lépp bu defoon na waaye am na seetkat seet yëpp a ko daa war a wane boo te tudd ñaankat mayekat la war a tudd waaw ndax yow yaay ñaan ñu ne moom am ñaankat la day ñaan yow dala dàq ñaan comme yorul dara day ñaan moo ne. mayakat la wara a tudd yow ya am na mayekat bu ne fi way amna ñaan kat bu ne fi loo fay wuti ko lay jaar rek la may jaar ni ñu teg mooy nekkul ci da bay ñaan ba noppi ne bëgg la jaay nag ñaan bi te mom xamul li ñi ñaan na ci yotam nit lool da ngay fayal nga ñaan la kel na ko ñetteel ba ñaka top jogu jógu alquran ak sunna borom bi nee na wa man yaasu an sikri rahman nu xayib lahu sheytaanan fa huwa lahu qarin ku fi bàyyi alquran ak sunna du looy def lu def consulter alquran looy bëgg a def consulter alquran boo ko mënee demal ci sa bopp boo ko mënul laajal ñi ko xam fasalu ahla zikri in kuntum la taalamoon amoo lay dem nga mën a consulter sa bopp alquran wala nga laaj ñi ko man nee na ku ko deful nag nu xayib lahu sheytaanan sheytaana da lay daal di kole فهو له قليل nekk sa àndandoo te wa innahum la yasudduunahum ani sabil day dox sa digganteeg yoon yi ba noppi di la wan ne nag yaa gindiku ba yaxsabuuna annahum muhtadun di la wan ay gént di la wan ay kéemtaan di la wan ay yu raar ci kanamu nit ji nga tudd bëgg a tuddee loolu lépp nag ak wilaaya fekk na wilaayatu cheytaan la juróomeel ba mooy di déglu ak di topp waxi ñi nga xam ne dañuy wax ci yàlla te duñ ko teg ci xam-xam borom bi nee na wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah nee na ñu ëpp ci kaw suuf soo leen toppee ñu sànk la ba doog ba nga wàcc yoonu yàlla ndax la in yattabi'una illa zann njot dong la ñuy topp wa in hum illa yaxusuun dañuy toll la rek kon kuy wax ci yàlla lu mu xamul waa ji lu mu wax lu mu rëy rëy rëy déglul dalil ba rek na am këyit na am facture marchandise mu la waay bëgg a jaay na la defal këyit mooy lu la waay wax ci diine na la defal wax source ba alquran fu mu ca jóge wala sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu amul loolu loolu xorom la ne la nga ñëw rek de façon bañ gëm loo boros boo xëccee rek lépp nag waa ji lu wax ba ni ak ah, wax rëy na xanaa danaa fu mu tegee ci ak sunna ne xaaw naa teew balaa daaru sax nit ñi commencé porte sooka tat waaw ndax neex bu mu nekk ci seen wax wala muy wax te la muy wax mu tudd ko def benn source feneen fu mu ko delloo li fekk nit kaa ngi topp lu mel noonu nag kooku dañ koy sànq juróom-benneel ba mooy di ëppal ci ay nit ëppal ci ay nit bëgg leen weesale jaami yàlla wa xaalat il yahudu usayru ibnullah wa xaalat il nasara masihu ibnullah wa xaalat il yahudu wa nasara nahnu abnaullahi wa ahibbaa waaw yéen yahud yeeg nasaraan yi boo gisee suñu borom di leen di ñu nekk ci alxuraan seen mbir dafa bari lu jullit ñu copier ci yoon lool fi mu am na ñoo xam ne yoon dañuy def seen askan rek askan rek moo leen dugal àjjana waaw mais nag dañoo bokk ak yàlla dañu naan deret ji deret ji ñu yor kooku moom la la gën a moom. liir ba judd ci ñoom tey rek yow mi fi yàgg jàng alxuraan mokkal ko jàng xamul lépp liir bee la gën waaw liir bi sa borom ndax ni mu sant wala fi mu bokk. xam kon ñooñu kon dañoo jàppale kon lii ñoom askanu yàlla lañ yor li yahuud yi waxoon moom doomee ñooy doomi yàlla ñooy waaw lu tax nag bu ngeen yàlla di leen dugal xoli falama yu azibukum bi zunubikum te itam sax nee na li ci gën a gaaw bu fekkente ne yéen ngeen a yéene doomi yàlla dee rek moo leen dee tugg ajal kon fata mën nagul moo tax in kuntum saadiqin ñaan leen tee waaye bu ñu doon naan yàlla dafa yàgg téwér yàlla wéeréen di ta dee tey ñu ko wax gannaaw moom moom àjjana la jëm sëñ bi yàlla na feebar si dee rek mu dem àjjana فتمنوا الموت إن كنتم صادقين من ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم waaw neel duñ ko mën a mukk dee xalaatuñ ko wala tajidannahum ahrasa annaasi ala xaya wa min allasina asraku wa yawaddu ahaduhum law yuammaru alfa sana yéen ko war boo ne ko yaa ngi fi am junni at sax mu def amin waaw junni at xam na moom du ko fi am waaye bëgg na ko kon ëppal ay nit bu bëgg leen a weesale yàlla loolu dana yàq pas-pasu nit rawati nag nit ñi koy woote woo ci seen bopp nit ñi koy woote woo lu nañ wax ko ci seen bopp yàlla defal na ma lii defal na ma laa loola mën naa sànq lu baxee bare bare gis nga ko bu ñuy xuloo yawmal xiyaam walaw tara iza saalimuuna mawquufuuna inda rabbihim ñi ñu réeraloon ak ñi leen réeraloon ba ñoo loo dem yawmal xiyaam dañuy taxaw xuloo ولا ترى إن سالم ما قفون إن ربي يرجع بعضهم إلى بعض القول ني جو جو سانت أي واخ ني المستضعفين ني نيغ لا المستكبرين يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين يين ني بول وون يين نغم يالا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنا مصدرناكم الهدى بعد إذ جاءكم نمر بغل سيدي جنبين القرآن ak sunna ban kuntu mujrimiin kat yéen ko ay saay saay génn kat loolu nekkoon dafa neex rek ngeen àndal wa qaala lasina studifoo li lasina takbaru ñooñu toog ne ko bal makarul layli wa nahaar istaamuroona an nakfara billahi wa najala lahu amdaada yéen a doon fexeel bu dégg bëccëg pexe yu ne ngeen di ko def ngir ko bëgg leen a gën a gëm borom bi ne loola mooy xuloo ña nar a mujj safara bu ëllëgee ñii réeroon ak ñi leen réeraloon برام بيت بارك تعالى نيانا بس بوا جيسي سير قلوبا إذا سالمون موقفون إن ربنا فوف لن يوجد بلن بو موي طاب بان ليخ أي نت يو خامل دنيو رير غير اللي بلوك دي واتي تعالى جو ديك قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم خير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن صلاة السبيل borom bi nee na bu leen topp nit bànneexi nit ñoo xam ne dañoo réer réeral lu bare bare bare bare wacc ci yoon bokk na ci itam lay wàcce nit ki xañ ko taw muy muy wut ak njub bëgg gindi ko te wuti ko ci yàlla qul inna hudallahi huwal huda njubug yàlla rek mooy ak njub moo tax Ibrahima boo gisee yi mu tëjee woon buñ ci bokkaale yi borom bi ne ko inni jaa'iluka linnaasi imaama def naa la ngay imaamu nit ñi ci tawxiid wa kazalika awxaynaa ilayka an ittabi millata ibrahima xanifan wa maa kaana min almusrikin suñu borom fu mu tuddee ibrahima rek da cay teg wa maa kaana min almusrikin moom mësta bokk ci bokkaalekat yi moo tax mu ne kon roy leen ko xad kaana lakum uswatun xasana fi ibrahima wallasina maahu tawxiid jële leen ko ci ibrahima alayhi salaam moo tax daf ne illa rabbal alamina la si xalaqa nii foo moo yahdi yàlla mi bind moo may jubal moo may wax fu may jaas te du ma dem di wuti wér wala muy wut ñu naan ma defal nankam lu bokk la li mu jàngale ci diineem ji ci lay wut am njub waaw waaye du mun ay sekk rek ay doga ay yooyu yëpp ma defee ne yooyu moo ma mën a gindi moo ma mën a may ngërëmul yàlla déedéet li ñu jàngale ci lislaam mu leer nañ julli juróom yii koor yii asaka yii aj makka yi moo leen jëf yu baax yi yi xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko foofu la mu موتا بون بيتا باركو تالا ني نيغا خامني ام نيا نين ني توبون دور بوت نيوك ان جوب بو يوم القيامه وبرس ولله جميعا نيوم نيب ني تن سي كانو يالا فخال ضعفاء للذين استكبروا ضعفاء ني نيمون دولا دي واخ ني دون غاند غاند دل ان كنا لكم تبعا ني نيب فهل انتم مخلون عنا من عذاب الله من شيء نخ بوغلوم يالا ميتال من غير موتي فغال دا لو هدانا الله ولا هديناكم نور بون جوبون جوبل bu nu juboon jubal leen te xamoon ngeen ne jubul waaw ku topp ku nga ko ah koo xam ne leer buntu moo la koy moyee yàlla yaa ko koy wutali leer na ko ñoo jubul da ngeen bokk de ci yàlla noonu rek kon xam nga ne jubul waxtu julli bu jotee nga gis ko moom bu génn ma nga tëdd doo ko gis ca jàkk ba noppi nga ne moom nga toog moo tax ñu ne la wa hadaana llaahu la nu juboon jubal leen moo tax sawaawun alayna ajasiix naa am sabar naa maa lanaa min maxiis tey moom mu muñ ak mu saalit moo ci yëpp amul mu fay rawee allah borom bi ne qul hal min surakaikum laajal ma nit ñi ne leen ñi ñuy bokkaale ak yàlla ndax am na ci man yahdi ila alxaq ku leen mën a teg ci yoonu dëgg qul illahu yahdi lil xaq yàlla rek mooy tege ci yoonu dëgg afa man yahdi ila alxaq nag axaq an yutaba aman laa yahdi ila an yuhda ki ñu war a topp mu yàlla miy tege ci njub moo lañ war a topp wala ki nga xam ne moom buñ ko gindiwul moom du gindi ko fa maa lakum kayfa tahkumuun naka ngeen di attee ci xel mu jub bëgg a topp koo xam ne buñ ko gindiwul moom mënta gindi ko beneen bi mooy bëgg am wërsëg te doo ko jële ci suñu borom tabaaraka wa taala defe na ak njabar ak ay kappaleeg yooyu mën nga ci am wërsëg ابراهيم انا ول نمتدي بنت بوبو داف ني ولسي هو يطعمني ويسقي يالا موي كيماي جوخ لوما ليك اك لوما نان دا ورسك نا ليب ميغي ديلو سي ليك اك نان ريك بروم ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا نيلا كو في جامو تاد يالا يورلو لا سو ورسك كون نك فابتكو عند الله رزقا وود لين ورسك تي يالا واعبدوه واسكروا له اليه ترجعون te ngeen jaamu ko te sant ko te wërsëg bi ngeen sabablu li ci des ngeen ñaan yàlla yombalal leen yàlla digal na la li ngay wuti wërsëg famsu fi manakibiha wa kulu min risqi fa isa qudiyati salatu fantasiru fil ard wabtahu min fadlillah dem leen wuti ci xéewal bi yàlla def ci kaw suuf famsu la yàlla wax da ngeen da ngeen jëm da ngeen xëy wutim xëy beneen bi mooy bëgg a saafaraw feebar bëgg a saafaraw تجاري وبتي فيلك يا نادي قال كم كم تدري حق بس بس إبراهيم من كتر جوا إسحاق ماري تو فهو يشفي سما في أبرياء الله ما يفعل سنبرأ نقول إذا بقى فجر الله كنن نير أفر أيكم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدور هل هن كاسفات دور أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي يودالين قل حسبي الله من قال حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون yéen ñi ma yebal naan ma demal ci seet sàngama demal jiw sàngama demal ci maam man yi dama leen di laaj bu yàlla namee ci man teg ma lor ndax lor bi kenn mën na ko teg in araada ni yendaahu bi durrin hal hunna kaasifaatu durri ñi naan ma soo ñaan lu ji wul place bi mootul doo ci jot wala dañ la dàq léeral bu fekkente ne nam mën a ci man yërmande aw araada ni bi rahmatin hal hunna mumsikaatu rahmati ndax yërmande yàlla kenn mën na ko fam ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها waaye wa maa yumsik falaa mursila lahu min baad waaw yàlla lu muy joxe kenn mënu ko te ex waaye lu mu xale kenn mënu ko tax a ex parce que boobu la julli di am maa yaftaqi llaahu linnaasi min rahma falaa mumsika laha lii la yàlla ba desee naa fexe ba doo ci jot déedéet waaye wa maa yumsik lu mu téye itam falaa mursila la kenn mënu tax nga jot ci loolu ku ko am pas-pas boobu dootoo dérapé di ko jaare suuf beneen bi mooy bëgg fan wu gudd loolu itam dana dugal nit ki ci ñàkk pas-pas bu wér bokkaale boo leen ñu nga gis ñuy takk ay xar nga fuufa takk seen përëg yi ba mu fees takk seen ndigg yi ba mu fees takk seen bunti néeg yi takk seen direction oto yi boo leen laajoon ñu lay wàññal dañ naan la bii day tax a am wërsëg da ngay ubbi ko loo jaay mu jàpp koo leb lu mu lebal nga te lu nga fayoo ko laaj mu jox la beneen bi bii doo accidenté da gudd fan wala boo accidenté ñëpp dañuy faatu yow yaa cee mucc loolu Ibrahima mi ngi ko tëjee yumiitu nii summa yuhyiin yàlla nu may dundal moo may rey kon sama fan fekkuma ko ci kenn beneen ba nag ci lay sànqal nit ñi nag mooy kooy yaakaar yow man xiyaam nag kooku nag moo sànq ñu bare bare bare bare benn waaye wax na ko sànq joxe ci misaal ne maag yow mosuñoo dem Italie maa ngi yow xamuñu fii foofu nga nekk fii ma la buñ demee Italie maa lay dalal am naa fa sax kër gu ma gu ma lay jaay nga commencé verser mu ne dana jaay Italie kër te mu mosu fa dem de am fa dal nga commencé verser kër Italie kër lay jaay moom mu xamul sax fu muy daal bu demee xamul sax wàcce aéroport ñu embarqué ko yóbbu ko ko na dé mooy nekk fii rek di la jaay location àjjana nga tax moom tàmbalee verser yaa ngi verser rek waaw te moom demagul moom xamul lu fay am moom xam nga ne loolu loolu xel fekk xel bu doon ci adduna bi sax doo ko nangu adduna bi nga nga jaay la fi kër France demal mosuma dem France nga jaay la fa am naa fa kër ay kër yu bari laa fa kaay leen ma jaay ak mboolem ay ay kër laa fa ngeen di wees rek waaw tey wees nga përi ba nag bu jeex itam dama matal nga da ngay fay rek fa ko ga mat na nag mën ngaa bàyyi déedéet moom da ngay continuer di fay rek boo faatu sa doom di fay waaw sa doom dafay location loolu <laughs> mooy kon moo tax Ibrahima li mu tëjee loolu daf ne wala si atamaaw an yaxfira li xatiati yowma diin yàlla dong laa xemem moom laa yaakaar mu jéggal ma samay bàkkaar yu ma xiyaam borom bi ne wa yaabuduuna min duunillah maa laa yadurruhum wala yanfa'uhum nit ñi dañuy jaamu leneen lu yàlla. boo waxee rek moom dëgguñu ko tuddee baatu jaamu waaye li ñu def jaamu rek koo xam ne léegi lu mu la digal nga def lu mu la tere nga baax yàlla loolu dong la amoon ci yow yàlla loolu dong la de ci yow ah léegi jox nga ko keneen yàlla ba mu dese ci yow léegi kon ñaari ndigal moom mënta boole mënta mënta boole di def ndigalu kii di def ndigalu kenn kenn kenn nga mën a def ndigalam borom wax na ko daraba laahu wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyaani masalan kon alhamdulillah ba ak sa moom laa yàq la nee na waa ji am ñaari patron yu jubóowul bu ko kii nee xëyal Ndakaaru kii ne ko xëyal Kaolack te ñoom ñaar ñëpp am ci moom autorité ba léegi mu muy def nag ah xëy Ndakaaru laa bëgg nga xëy kii ne ko déedéet man Kaolack laa bëgg nga xëy jubóowuñu ñoom ñaar kenn ki la kenn ki wax moom la kenn ki compte mën na kooku mën naa yem ak ko am benn patron boo xam ne lu mu ko def rek moom foofu lay jëm wa rajulan salaman li rajul kooku kii bokkaale ak yàlla ak ki wéetal yàlla noonu la moom yàlla rek lay jaam te bokkaale foo ko fekk du man a doon kenn mënta mënta am benn sëriñ da ngay dégg ku ne ma jiw lu amul soxla woo boo ko laajoon sa ndomba gi ndax sa ndomba gi gi kooku nga naan lu mu amul soxla woo ndax moo la jox ñu bari lay am dañ naan kii mooy ay ci gudd fan kii mooy ay ci wërsëg kii soo bëggee doom kii soo bëggee day séddale ko moom la borom bi tabaaraka wa taala wax ne ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح نانا كو بكار ديال دا فامي نكو خاوي اسمان جيبتو فن دا كي جاب فن موي كي ام توحيد ومن يكفر بالتاخر ويؤمن بلا فوق فقد استمسك بالعروه الوثقى كي ويل دي تاخر جيم يالا تيري في بومبو دغ واي نكو من يشرك بالله مون فكانما خر من السماء dafa xawee asamaan rek ne nañu yóbbu goj avion ba ca kaw ñu ubbi buntu avion rek boo mu ne ñaaray am benn picc yi bala si picc yi këf ko fa tax tafufu tayu picc yi nag mooy nit ñi koy détourné kenn ku ne jël ci moom dara jibar yee ñooy woote wàcc yàlla kenn ku ne am ci moom dara may sëriñum nangamam léegi dégg dégg da may sëriñum nangamam waaw kenn mooy sëriñum bu dee tukki ci diw lay dem bu dee wuti soxna ci diw lay dem bu bëggee liggéey ci diw lay dem mooy dañ koy séddoo fa tax tafufu tayu wala boog mu xalaw xalaw ba daanu ci kam bu ko moy mu ko top ay bàllee xam moy yalla ay ya bakay faatu ci mom ki bokkaal ak yalla mom ñaar yoy rek lay mujj ben mu nekk ci service ñeneen wala mu nekk ci service bopam kenn mënu ko détourné di ko fay say soxla way ci bànneexu bopam la nekk mom moy aw tahwi bihi rek fi makanin sahih borom bi ne ñooñu dañuy wut keneen ku ñu jaamu ku ñu jaamu soo leen laaj ñu ne haulaay sufahauna inda allah maanaam namee ay ramukat nit ñi dañoo namee fii ay ramukat waaw kii day ramu yow alxiyaam moo tax inscrire naa ci moom waaw am ay avocat daal ay avocat lañu wut fii baro baro yow alxiyaam bi gars yi wutal lañ koy avocat yaquluuna haulaay sufahauna inda allah borom bi ne waaw waaw kon man da ngeen may xamal lu ma ko ban ñooñu def ma ne di avocat ngeen ay avocat lañ qul atunabbi'uuna allaha bimaa laa ya'lam kon yéen a ngi yëgal yàlla lu mu xamul yàlla deful kii ràmmkat ngeen ne ko yàlla par force bi muy day ram waaw te yàlla moom nee na moom defu ko ràmmkat ah, waaw kon yéen da ngeen a xam ne yàlla xamul moo tax qul atunabbi'una allaha bima la ya'lam fi samawati wala fi l-ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun kon jékki-jékki jël ay nit jox leen ay fiir yoo xam ne amoo ca benn dalil yàlla moom ba mu wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tëj diine ji waxatu fekk kenn ku ko soxla demal ci alquran wala yàlla waxatu fekk kenn lu waay soxla mi ngi ci alquran بابل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الاسلام دينا كي لا تي باي ليك كو بغا تي خام لو يالا واخ تي ياو لو مولا ديغال ولا لو مولا فير بول خار نان نعم داما كوي جنت دنج ما تي فيديو ديو ما كوي واخ سيت القران سوكو خام لا دال ني خام القران ني جوت لي لا كو جوت لي بو خام ني جوم سين يون نيكو تي دنج لا جوت لي am naa nag jeexit ji nga xam ne pas-pasu tawxiid dana ko def ci nit ki individu bi kenn ku ci boppam ku am tawxiid la ca jiitu mooy da ngay mucc ci seytaan borom bi ne innahu laysa lahu sultaan ala allasina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun seytaan amul benn autorité ci ku gëm yàlla gëm yàlla gu wér wàkkeelu ci yàlla ñaare ba mooy day am al hidaayatu tawfiqiya gindi goo xam ne yàlla da lay gindi teg la ci yoon bi doo ko mën a wàcc xam nga gindi day ñaar bu ñu ñëw tey laaj ca kër ci dëkk bi mën ngaa toog fii tegsal ko jàddal sa ndeyjoor jàddal sa càmmoñ boo demee fekk nga toog fi nga toog yow kooku moom yàlla defal na ko ñëpp moom la yàlla ci mën itam am maanaam jàpp ci sa loxo ba eggala la kooku yàlla a ko mën moom la ñuy ñaan ci fatiha ihdina siraatal mustaqim xam nga yonent bi sallallahu alayhi nee na ko innaka laa tahdi man ahbabta boobu la koy wax teew mu ne ko wa innaka la tahdi ila siraatil mustaqim mën ngaa wane siraatul mustaqim am maa nag téye ci loxo bi mu neex ko mu naqare mu tegu ci siraatul mustaqim bu dugg àjjana kooku yàlla nee na moom rek moo ko ki gëm yàlla dafa koy defal wa inna allaha la haadi allasina amanu ila siraatil mustaqim inna allasina amanu wa amilu salihat yahdihim yahdihim rabbuhum bi imanihim ñi gëm yàlla am tafi ci sababu seen ngëm gi ci la leen yàlla di gindee teg leen ci yoon wi dañ ko mën da leen di defarit sax ci dëgg lu lott yu bari bari bari ak coono adduna yi du tax ñu rëkkale ci topp yi yusabitu llahu allasina amanu bi qawli sabit fi lxayati dunia wa fi l'axira tasbit ndax nag adduna dafa bari dafa bari ay mbir bi mel garab goo jëmbat ngelaw yeeg taw yu métti yeeg ak oto yi koy tamponné yooyu yëpp mën a buddi garab te soo jëmbatee taw it ci sa xol day mel ne garab goo jëmbat borom bi sax garab la ko tëddee kalimatan tayyiba kasajara kasajara tin tayyiba asluha sabit gari da wara daga wa farduha fi sama banqas yi wuti asaman ubla uplaha kullu in bi ismi rabbi jamana bu rek muy benni l'islam dafa melne garab day ami ren ren yi moy tawhid bi moy pass pass bi dafa wara ami banqas yi feñ moy li ngay jambu yalla ngay def ci biti nit di ko gis xam garab gi ñoo ngi seen xobi gis garab bi waye ren yi gisunu ko reen yi nag moo tax garab yu naataay bi yépp ci reen nit ki itam mënoo gis pas-pasam waaye boo gisee li muy def ak li muy wax ci lu baax da nga xam ne kii yàlla la gëm defee na ko gëm yàlla boo jëflanteeg moom nag mooy meññat mi gis na kii meññat mu neex la am lu mu la waxul dëggu la la war du la waxal lu amut du la jéem a nax moo tax tu tuuti ukulaha kulla hiin bi ismi rabbih garab bu reen ya saxee fu baax xob yi ya dëm meññeef ma neex yaram googu mat na gan waaye jullit tam su fekkee pas-pasam dëgër comportement ay jaamu yàlla am rafet na ay jikkoom boo jëflanteeg moom lépp rafet kooku mooy jullit bi mat jullit ñeenteel ba suñu borom day aar ki gëm yàlla donte ña koy duggal ay xalwaat ña ngi koy xaatima ña koy jibar ak yépp te moom mu sax ci tawxiid dara du ko ci mën a wàññi dara inna allaha yudafiu an illazina amanu وكان حقا علينا نصر المؤمنين يالا نينا ورال نا سي سما فاو دامي ديمبلي نيغا خامني دانيو گم يالا سون بوروم دا فاي ديفال سكينه موي خيل ما داو لو نياك نياك خيل مي داي دال هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم داي ام سكينه سكينه مو اوب دوني ليپ آه. افيو بوروم كونتي بانكي ني ييپ سكينه لو مو ديك ديكو دالالي سين خيل بو نيت ني دام نيوم نيوبال سين خيل مو دو فيريفيي سي بانكي كونتي daal di toog ne ah xel mi daal waaye xel li koy dalal dëgg nag ala bi zikrillahi tatma innul qulub suñu borom day yëkkati daraja ki gëm yàlla yarfa illahu allasina amanu minkum wallasina utul ilma darajat kooku day am wilayatullah day doon waliyu yàlla day féeteeg yàlla ala inna awliya allah laa xawfun alayhim wala hum yahzanun mooy ñan allasina amanu wa kanu yattaqun نيجم يالا تراجل يالا نيو نيو أولياء الله داي أم حياة طيبة ميدون بوليخ بوتين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة طيبة لنبقى الورسد مباري ولا أم أن أدنى waye moy tal li la fi indi rek jaamu yalla mo la fi indi nga am ci wërseuk loo xam ne dana tax nga tal jaamu yàlla gi waaye am wërsëg boo xam ne tëlatoo li la fi indi kooku amul xayaatan tayyiba kooku fitna la moom la borom ne falaa tu'jibka amwaaluhum wala awlaaduhum innama yuridu llahu li yu'azzibahum biha fi l-hayaati dunya am na ñoo xam ne seen wërsëg ak seen njaboot fitna la yàlla da leen koy mbugale fii ci àdduna li yu'azzibahum biha fi l-hayaati dunya waaye ki am njaboot gu jub bu tegu ci lislaam am wërsëg wu lew moo xam ne du ko yàqal dara ci jaamu yàlla wërsëg ko sax da koy jaamoo yàlla da koy investir ci kooku am xayatan tey waaye ki xam ne dem na ba liggéeyam mooy tax muy faat ay waxtuy julli di faat ay ajjum te la da jokk bokk te la tudd seeti kenn lépp na kër kër bi ay liggéeyante bi addunaam kooku ci fitna lay judd te loolu la muy nekk lépp nag benn seconde lay tax ñàkk lépp bu roogee dogee rek ñàkk nga lépp mënatoo ci dara waaw bu roogee dogee loo xam ne sa dund bépp ci dajale pour nga wut ñàkk ko ci benn si bon ah génn sa loxo mu neex la mu naqar la moom dem na tàbbi na ci yeneen loxo ñooñu la xamoo luñ cay def bokk na ca la muy am itam buy bëgg a faatu nga xam ne kuy bëgg a faatu ñaari mbir moo ne sa kanam yaa di jëm foo xam ne xamagoo loo fay fekk yaa ngi bëgg bàyyi foo xam ne amoon nga fi lu bari am nga fi njaboot am fi alal am fi lu nekk mu ne miin fi am fi xarit mu leer la ne tey jii bi ñuy moom da ngay tàggoog ñoom te fa nga jëm xamoo loolu mooy alxusb da ngay am tiis fa nga jëm xamoo loolu mooy alxawf borom bi nag inna lasina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu fala xawfun alayhim wala hum yaxsanun beneen aaya bu mu ne tatanazzal alayhim almalaika malaaka yi sax ñoo la koy xamal bala ngaa faatu ne leen an laa taqaafu wala taxsanu laa taqaafu bu leen ragal fa ngeen jëm wala taxsanu bu leen amul naqar fii ngeen di bëgg a bàyyi ndax lan nahnu awliyaukum fi lxayaati dunia wa fi laxira suñu borom nee na maay seen péete ci àdduna ak alaxira walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma taddaxun lépp lu ngeen bëgg da ngeen ko fa am lu ngeen jox facture nusulan min rabbin xafuur rahim nusulan gànnale la àjjana bu la yàlla facturé woon doo fa yéen waaw ku fa dugg yàlla facturé waaye boo da nga dem ci hôtel yu cher yi rek waaw loo wóolu wóolu sa poos bëgg faa tëdd rek ci noos boo fa defee weer bu ñu la indilee facture boo tuur la nga amul cere ya kon nag àjjana benn bëccëgu àdduna àjjana kenn mënu koo liggéey moo tax borom nusalan min xafuurin rahiim gànna la xam nga gan moom lu ne lañ ko def ñun ñu tey mbokk yi lu ñu def leen doxul doxul ñu benn facture waaw fay wuñu daal waaw gànna la moom kenn kenn fay ku yoroon gànna la gànna la ba gan kii ñu dëngee na ko nag facture baa ngi nii gan <laughs> booba ba ca mujj rek ci gën caa baax nag mooy tàbbi jannatul firdaws yàlla na ko yàlla defal borom ne inna lasina amanu amanu amanu bu waxee moo ñu am tawxid wa amilu salihat kaanat lahum jannatul firdaws nusula ajjana firdaws mooy seen wàccu gi te xaalidina fiiha nag te bi mu fa génn te laa yabquuna anhaa hiwala du leen sàppi ba ñuy bëgg a dem feneen xam nga doomu aadama daf fii ci àdduna foo ko dugaloon la mu neex neex neex bu yàggee am na daal du ma yóbboon feneen fii daal moom <laughs> sàppi na ba léegi waaw waaye nee na àjjana ja moom bu sàppi benn yoon ndax lu ñu la andil ci xéewal rek day a gis waaw lu ñu la ci xéewal day mel ne tey nga ko mos a mos tey nga ko doog a gis am naa jeexit bi muy def nag ci société bi ci mbooloo mépp suñu bokkoon am tawxiid yàlla dimbali ñu dëkk ci dëkk ñëpp dëkk bi ñëpp di wéetal yàlla yàlla di leen di may doole ci kaw suuf te loolu amoon na dafa na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na ba fi mu nekk ñëpp ñoo koy def ci diir bu gàtt nag ñaar fukki at ak ñett yi mu def ci nubboo bi bi mu ci daataan jógee mbooleem fi jullit ñi rek réew yi mu ubbi yëpp lislaam dafay dox borom bi moo ko digee waada allahu lasina amanu minkum wa amilu salihat la yastaxlifannahum fi l ard dana leen teg ci kaw suuf ngeen jërëf ko kama staxlafa lasina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum allasi tadaa lahum diine ji mu leen gënamal dana leen ko may doole ba du ngeen bëgg a def ci diine ji mën koo def xam nga diine ji fi mu bari na lu yàlla digal wax mënuñu ko def ak tey islam yi mënuñu ko doxal sàngara yi jàng jaay mënuñu ko tere jigéen ñi jaay seen bopp mënuñu ko tere lépp ñu ngi dund ak moom kon diine ji ma ñu ni diine ji mat te da doon waqaatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna diinu kulluhu lillah na ngeen xeex def seen effort ba fitna bañ fi am fitna mooy ñuy dund lu yàlla tere te kenn mënu ko fi jël wa yakuuna diinu kulluhu ñu ne ma gumale kulluhu waaye sulu suufoo sax nekkul lillah waaw waaw. mu ne bu ngeen àndoon wéetal yàlla. yàlla dana leen may doole dëgëral diine ji wala yu baddi lan nahum min baadi xawfihim amnan sart ba nag mooy yaabuduuna nii laa yusrikuuna bi shay'an suñu problème yëpp loolu. bokkaale gi rek bokkaale gu metti bi bokkaale gi itam boo gisee lu sax daa am ñu ciy dund loo xam ne ci bokkaale gi nit ñi ci la ñuy dund jibar yi ci la ñuy dund. ñi woote woon ne mën nañ dara yow malkaan ci la ñuy moo tax bëgguñu bokkale jóg ci bu nit ñi amoon taw koo gis ku ne nga xam ne sama nit dong la bu la ëppee xam àdduna jàngal la métier bu la ëppee xam-xamu diina jàngal la alxuraan su la ngeen ànd jaamu yàlla ko ne dem loolu bu boobaa ñëpp ay wàcc dem liggéey ñëpp nekk ay nawle ñëpp am jàmm waaw beneen ba mooy ndimbalul suñu borom tabaraka wa taala ci kaw ñi gëm yàlla bu fekkente ne wéetal nañu yàlla wa kaana xaqan alaynaa nasrul muminin ba ca des itam la muy juróom mooy buñ amee tawxiid dañuy nekk benn noonu yëpp ñàkk tawxiid la ndax kenn ku ne fa nga féete la nga la nga ca dolli te bokk ca ku kontar loola nga kontar nga noonu ak moom kenn ku ne ko mën na lu mu ci ñambaas yëmul ci yàlla kese bi am na lu mu ca boole loolee mu ca boole ci lay natt ba xam xaritam nga wala doo xaritam waaw fa mu féetale boppam la mu ca yokk yooyu na ngeen jënd benn tige waaye moom mu dem ñambaase ko morso bu xonq kee ñambaase morso bu ñuul bu ngeen dajee rek nde morso bu xonq rek a baax yow sax danga maa kontar ndax yow yaa ngi fi ñambaas morso bu ñuul te defoo bu xonq lu tax defoo bu xonq mooy ma féete lu tax féete woo fi waaw am am diine jaamu yàlla dajee ci jàkk ñëpp téew a ah, bu nekkoon nangam rek dana baax waaw lam nekk lay bëgg nga nekk nekkoo ko moom ànd kaw ànd yow mais du la du la jàppe mbokk waaw nag dana warul ko lu man yooyu ñu ci dugal sa bokk ci rek moo tax borom bi nga woon innamal mu'minuuna ixwa ñi gëm yàlla rek foo leen fekk bokk la ñu fa aslihu bayna axaway te bokk boobaa li yàqu bokk yëpp muy xeebanteeg yëpp dafay jeex moo tax al ixtiraamul mutabaadal muy respectante kenn ku nekk jox sa cër moom am na ñoo xam ne joxuñu la moom benn cër boo dugg seen topp dugguñ dañoo dangaa war a sumi say dàll boo egsee fooy toog ci ndax lekk nga naan nga siiw yëpp ñëpp jënd nga noole te ñoom buñ doon ñëw sa kër tey moom yow doo yend yow doo fanaan yow te yow boo seen kër yow ñoom jàpp nañ la sax yaa ngi mais kooku kooku jàpp wala te borom nee noonu laa yees xar min xaw ma ñenn nit bu ñu xeeb ñenn nit ndax kat ki ngay xeeb ngir nattukaayu adduna yii mën na am moo la gën fa yàlla asa an yakunu xayran min ki ngay xeeb ngir ne yaa ko ëpp alal wala yaa ko ëpp dara de wala nit ñi teg nañ la fu ñu ko tegul moom nga saw sant wala fa bokk moom kenn dégg ko foofu mën naa am fa yàlla moo def ëpp ci kon kenn war a xeeb kenn kenn ku ne itam da ngay mucc ci sa borom ndax ñaaw ndox da nga koy bàyyi yaa ayyuhaa lazina aamanu ijtanibu kathiran mina zann ndax kat inna ba'da zanni ismun wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'dan bu leen nekk di espionné wu di yëddu di jéem a xam sa borom ci lu mu nekk bu leen nekk di jëwante yooyu yëpp tawxiid daf koy dindi ci nit beneen ba mooy seeni diggante day yéwén fa attaqullaha wa aslihu saata baynakum wa atiqullaha wa rasula in kuntum muminin ragal leen yàlla te ngeen defar seen diggante boo jotee ni dara fexeel ba loola ngeen defaroo fexeel ba ngeen defaroo nee na loolu ngeen def fekkee gëm ngeen yàlla juróom-ñaare ba wërsëg yi day am barke xam nga wërsëg bari na lool fi la ëpp ay milliards dégg ñuy wax te tey dañu ci gën a sonn kon barke nekku ci borom bi ne walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahnaa alayhi barakatin min as-samaa'i wal ard bu fekkoonte ne am na ñu dëkk ci dëkk gëm yàlla ragal yàlla dama leen di ubbil bunti barke ci asamaan si ak si suuf si ressources yi nekk ci suuf si yëpp yàlla génn ko nit ñi di ko jariñoo ay amande du ca am ay ordonnance du ca am xam na liggéey ba weer dee ñu fay la genn wàll gi dem ci ordonnance loolu barkeelut barkeelut wala mu dem ci ay amande wala sax ñu sàcc ko wala sax mu réer yooyu yëpp ñàkk barke dafay def yëpp boobaa li nga amoon dem na ci anam goo xam ne du la amal amaloon njëriñ wala sax nga dépensé ko ci du la amaloon njëriñ waaw def ko ci loo xam ne amul benn njëriñ barke mooy loo xam dala fay bàyyi yéen alal ja bu demee bàyyi fa du la amal njëriñ ci sa dund amal la njëriñ ci sa diine bu ñu amal tawxiid itam kenn ku nekk da ngay nekk sa péete morom sañ ko digal sañ ko tere ñepp yem ni ma la sañ a waxee non nga ma sañ a borom la la wata waasaw bil haqq wa waasaw bis sabr dinkante len la dinkante amul kenn ko xamne mom moy mooy dig nit ñi di len wax deug te mom kenn ko wax dëgg te bil haqq wa waasaw bis sabr borom bi wal mu'minuna wal muminat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar ñi gëm yàlla ñu góor ak ñu jigéen kenn ku ne sa péete borom nga ni nga ko sañee diggale lu baax noonu la ko sañee diggale ni nga ko sañee tere lu bon noonu la ko sañee tere ngeen ànd nag wa yuqimuuna salaa wa yutuuna zaka wa yutiiuuna allaha wa rasula ngeen di ànd di topp yàlla ak yonentam mu ne ulaika sa yarhamuhumullah ñooñu la yàlla yërëm ñëpp nekk nawle beneen bay tam nag dimbalante wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal كل جسم نيو دو علي نجيبو لينا واي بنو لا خير بنو لا بيرا لا بروم بنا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتقاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما نيسير جسم يين جسم كايما جسم اك داني ريونيو اك داني داجي نينا دارنا امو سي نجاري لودول لو خا نني لاكو تاخا جوك موي ديفار اب ديغنتي ولا ديغلي كون ورا ديمبلي lisan bi ah diw sàngam kat war nañ koo dénk illaa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islahin bayna nee na wa man yaf an zaari ku def loolu te yàlla rek tax fa sawfa nutiihi ajran asiima naa ko fay fay yu mag ba ca des nag mooy xol yi day mucc ci kenn di ëmbal sa moroom coxor wala kiñaan buñ bokkoon di dund tawxiid nawlente kenn xéewal kenn kenn ku nekk di liggéey la nga man ku mënul ñu dimbali parce que yàlla prévoir na lépp même ñu dem ba mënuñu liggéey ñu ngi def liñ man waaye liñ am doyu leen ñenn ñi am nañu handicap ba mënuñu liggéey lépp l'islam jël na leen en charge jël wa aatal maala fi aatal maala lan tanaalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi kon waaye nag bu fekkee am na yoo xam ne man nañ ba pare bëgg dund ca kaw ña ca des di leen jig loo xam loolu mënu la nekk loola nag mooy indi xeebante mooy indi ay noonoo mooy indi ay majal borom bi ne wallasina jaa'u min baadihim yaquluun rabbana xfir lana wa li ixwanina allasina sabaquuna bil iman wala tajal fi qulubina xill xill benn matière la bu ne ci xolu doomu aadama bu ne ci la ki ñaan di jógee parce que xill mooy tax nga mën a bañ boo amul woon xill doo mën a bañ ko man dafa am ñu àddina bii ñu ñu ci war a bañ ñoo xam ne li ñu war a bañ matière bi leen di bañ rek moo tudd al xel waaye nag ñu ngi mel arme buñ la jox la ñu la jaasi ji ngay liggéey wala paaka bi boo amulul paaka wala sawara doo mën a taal waaye nag sawara taalal togg wala nga taal ngir ñuy def waaye nag bul taal la kër jàmm xel boobu bu ko jëmee ci ku gëm yàlla wala tajal fi quluubina naa xil lan lil lasiina aamanu gis nga xel boobu ci àdduna lañ ko soxla waaye bu ñuy dugg àjjana nga xam ne ku ñu war a bañ moom nekkul àjjana yang da koy rocci wan na saana ba demee suuratu Hud wan na saana damay demonte fi ala sururin mutaqaabilin ñëpp ikhwan, ixwaan ba nas ana nas ana damay dama koy demonte pièce la bu rek yàlla da koy demonte bu ñu bëgg a dugg àjjana ci buntu àjjana la ñuy demonte pièce boobu parce que buñ la ko ci bàyyi lee bu duggee àjjana dafay iñaan la <laughs> am fawqa kon mën ngaa dugg biir àjjana ba noppi nag sa xol di tàng naan man de yuruma dara nekk kër jiw dama gis yuruma yuruma yuruma dara ah waaye moom boo gisoon ku la fa ëpp dara de danga ko koy yére doo ko mën a bay ndax matière bi bañ a dim dëng wa nasa'na ma fi suduri min ghillin ikhwanan ikhwanan ñëpp ikhwaan la ñuy doon ala sururin mutaqabilin laa yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bi muxrajin neen bu leen fa sonn kenn du leen gën kon nag réll boobu ñu ngi ci doomu aadama waaye ngànnaay la yoo xam ne da koy bañ a ko noonu yàlla boo gisee jullit mën xeex bu yëpp ba di ko dóor jees di ko rey lo xel boobu tax waaw ah. waaye xel bi ko ci ku gëm yàlla waaye da ko jëme ci ku kon nag yàlla nu yàlla may dëgg-dëgg tawxiid te saxal nu ci ba bañuy dajeeg moom te yéen fu ñu toll la dañ koy vérifier buñ ne nun pare nañ ci ngëm yàlla rek déedéet برام بيساسي من نصف ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نقال واي بولين فاتو دوبل فيك نانجين نك جولي دك دك دك تخول يوسف عليه السلام دي بيونت بايام دي بيونت مامام دي بيونت ياقوبا كدو ياقوبا إبراهيم كدو لهم يونت لا بايام يونت لا مامام يونت ويتيون بومي بغا فاتو دفن ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما يلا يلا ما فات ملك أبدي وألحقني بالصالحين تقبوا لما كان يباحنا لون لم يجوه دالي فات توفني مسلما ونكوك يعني آه. من يعني يانا فاتكين جلد يوم جاءت لي وقال لما بيوم ماتنا جلدنا motax ku ñu tollu nañ koy vérifier ak di ñaan yàlla mu saxal nu ci bañ dajee ñu rabbana afriq alayna sabran وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تسق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا وسبيلا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت الغفور ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تسد ظالما الى كبار وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم